بسم الله حمدا لمن أرسل خير مرسل بخير أمة لخير الملل وأفضل الصلاة والسلام على لباب صفوة الأنام وآله أفنان دوحة الشرف وصحبه وتابعين نعم السلف الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله مبكي دالينا جام نيار فكيلو جرائب bi في سلسلة ci silsile bi دولة الخلافة العباسية ginnaaw nag ci ay ci alxalifa althaalis almahdi euh, ñi ngi tax taxawoon démb fi nga xam ne ci la nit ñi ñëwee di jaayante ak ñoom kon ñoo ngi ci dawlatul abbasiya ci ñetteelu xalifa bi di muhammad almahdi muhammad nag la tudd ibnu abdullah euh, euh, kii maanaam njortu pour dàkkantal lu baax am na noonu neneen nu ko olof di tudde baat ba réer la ma maanaam moo tax ñu tuddee ko almahdi pour euh, ne pour amaana mu nekk moom wala euh, ñu ne jikkoom yu baax jikkoom yu rafet ni ko nit ñi xamee moo tax ñu tuddee ko loolu booleeg mi ngi tudd Muhammad baayam tudd Abdullah léegi moom mooy ñetteelu xalifa ci dawlatul abbasiya démb nag mi ngi taxawoon ci jumaa ji di def xutba ci dajale nit ñi ñëpp ñoo war a jaayante ak moom fële maak Màkka ak Madina euh, Rabiu jël na fa jaayante ñëpp foofu ñëpp jaayante nañu ak moom comme moom moo fa nekkoon foofu la Abu Jaafaril Mansour génne àdduna Isa dong moo lànkoon ne du jaayante te problème boobu moom réglé nañ ko ba mujj na jaayante léegi nag bi mu ñëwee fii dajale nit ñëpp daal di tàgge leen baayam bi mu ko tàggee rongoñ tuuru Euh, waa jàkk ji ñëpp seen rongo ñuy tuuru mu ne leen rongo ñi jàmm la ndax yonentu salaam rongo ñam tuuru na ci soppe bu bu mu amoon mu génn àdduna muy continuer nag ci discours bi naan leen euh, kii ñu ñàkk nii yàllaa ko woo wuy ji na dafa jël wàllam ci li nga kaas yi nga xam ne mi ngi ñuy xaar ku mën a doon ci ñun jël na wàllam yàlla kum woo di nga kon nee na loolu muñ naa ko gëmee ko borom bi tabaraka wa taala yàlla moomu lay dimbali ko ci nguur gi nga xam ne teg na ko ci sama loxo te na ngeen xam ne dinaa leen yërëm dinaa ànd ak yéen ci lépp loo xamante ni bii jaadu na doomu aadama def ko dinaa teg sama tànk ci loolu pour def ko dinaa leen fare fi seen waajur waroon na fare ci yéen dinaa nekk waajur ci yéen dinaa nekk jabar ci yéen dinaa nekk jëkkër ci yéen dinaa nekk mbindaan ci yéen waaye nag ànd loolu dinaa feeñal maandu gu mat sëkk dinaa nekk ku leen di liggéeyal dinaa fer seeni rongañ dinaa taxaw kum mën a doon ci buntam bépp soxla bu mu am ñu def ci sunu kéemtalaayu kàttan mi ngi continuer ci xutba bi na ngeen ñi ngi leen di diggal na ngeen topp buur ñi ngi leen di digal ngeen topp amir ngeen bañ a wootee ak bañ a wuutee ak buur ñoo ngi ñaan yàlla mu sotti ci réew mi jàmm ak salaam maa ngi leen di giñal ne dinaa jeexal sama dund gi lépp pour jéem rafetal loolu dama ko giñ dinaa jeexal sama dund ci jéem rafetal ak jéem a teg mbir yi ci dëgg ak ci maandu bu kenn naw dooleem ba tax mu féeteerlu lu mu mën a doon ci digg bi lañ koy teg nee nañu bi mu waxee loolu nag fa asraqat wujuhu naas fa asraqat wujuhu naasi min xusni kalaamihi ah ñëpp nag maanaam jàkk ji ñëpp nooyi waat ne maanaam ñëpp yëgaat maanaam mbégte mu bees pour kàddu yu rafet ji mu génne wax naa leen ni kii maanaam dafa mënoon a wax te set li muy wax nag nee nañu sax mooy ki njëkk a taxaw ci kaw ci kaw minbar wax li nga xam ne ba léegi imam yi ñoo ngi koy def ci seen xutba maanaam bu ñu bëggee wax nit ñi julli leen ci yonent bi alayhi salaam ñu ne yàlla dafa sant dafa santaane dara tàmbalee ci boppam gannaaw gi mu dugal mu digal ko maraaka yi gannaaw gi mu digal leen ko kon nag yéen jullit ñi julli leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam méthode bu boobu ñu koy waxee moom mooy ki ko njëkk nee nañ ci moom lañ ko njëkk a déggee maanaam dafa mënoon a rabbu ay kàddu xam fi mu koy teg kàddu gu ne moo xam fi mu koy teg daf ko mënoon euh, bi mu defee xutba ba pare nag ne giñ naa ci yàlla ne dinaa jeexal sama dund teg ko ci maandu ak seeni bëgg-bëgg maanaam ñëpp nag dañoo noyyiwaat pour discours bu rafet boo xamante ni bii def na ko euh, nee nañ nag ki njëkk a jug pour ndokkeel ko mooy Abu dulama abo Dulaama te xam ngeen ko mooy woykat bu rëy boobu rek mooy ka woyoon euh, ka waxoon Abu Muslim al-Khurasani naan ko euh, dóor nga sa loxo ci ëkk aba aba muslimin dóor nga sa loxo ci ëkk ca woy yooyu nga xam ne jaaroon na fi ci jotaay yeñ passé euh, bi mu defee xutba ba pare nee nañu abo dulama mooy ki jëkk a jug nag ndokkeel ko ci ay woy lan la koy wax dafa ne ko aynaaya waaci aynaaya waaxidatun turaa masuuratan bi amiriha jesla wa uxra tasrifu تبكي وتضحك تارة ويسوؤها ما أنكرت ويسرها ما تعرف فيسوؤها موت الخليفة محرما ويسرها أن قام هذا أرحف ما إن رأيت كما رأيت ولا أرى شعرا أرجله وآخر ينتف هلك الخليفة يا لأمة أحمد وأتاكم من بعده من يخلف أوف أوف أبو دلام هلك الخليفة يا لأمة أحمد وأتاكم من بعده من يخلف أهدى لهذا أهدى لهذا الله فضل خلافة wa li zaaka jannati naimi tustaxrafu nee na xool nañ ko ñaari bëtam ya benn baa ngay jooy maanaam mahdi yu lay ndokkeel ci xilaafa gi ne ko ma nga taxaw di xutba moom mu mel ni benn bët ba dafay jooy benn bët ba di ree léegaa léegi nga gis ko mu muuñ léegaa léegi nga gis ko mu mel ni ko jàq mu ne ko ñi lay ndokkeel ci Euh, ay gu bees gi ma in ra'aytu kama ra'aytu wala ma nga naan ko xëlëkal xalifatu xalifa jóge na fi di Mansour tey wuyu ji na boroomam wa ataakum min baadihi man yaxlufu indil na leen gannaawam nag ko ko uutu kii ko uutu nii aa ah, yàllaa ko fi teg kam fa uutu nag kooku ma nga ca aljana di béelu maanaam woy ko woy yu kenn mës gis nee nañ mooy ki koy njëkk a ndokkeel moo tax rabia rabia nee na Abu Jaxfa kii Mahdi yu bim pare paree solu yére taxaw nag di julli dajeeg weer baa ngi génn leer mu xool ko ca pàkk bu yaatu mu taxaw di julli mu ne man dama ko xool xool weer bi maanaam xawma wax weer bi kan moo ci gën a rafet maa ngi ko gis ma nga taxaw sol yére yoo xam ne maanaam kàbbaar jàkkaarloog borom bi di julli xëyba bi maanaam ni mu mel ma xam ne kii fees na dell place bi nga jox nee na xool naa ko gestu xool weer bi xoolaat ko xawma moog weer bi kan moo ci gën a rafet maanaam dafa rafetoon nag nee nañu benn bët bi ñii ne bëtu ndeyjoor ñii ne bëtu càmmooy maanaam boo ko xoolee per bu wex bokku nak ak sunu bët yi manam maanaam ga bu ci nek buy wëndeelu nga xamne daf ko doli tar rafet lol mbokki ma mahdi bi dafa am waxon na len abu muslim khurasani bi ko abu al mansoor raye dafa am nak ñu genn ci ayam gi da di fipp ne dañu koy fayul am na ci koo xam ne moom la ñuy wax Hashim ibnu Hakim ñu gën koo xamee ci almuqannaa moom dafa doon oote ne dafa doon oote ne mooy yàlla maanaam euh, mbir mu garaaw la nag mais dafa bëri woon mbooloo lool nee nañu ko gàtt la woon ba kanam gi ñàng benn bët pat moom ci ci maanaam bokk na sax ci ñi doon xeex ba jëlee fi dawla Banu Umayya ci soldaari abu abu euh, abo muslim alxurasaani yi ci la bokkoon nekkoon nit ku mënoon a xeex ba noppi xel mi rëy lool mu gaawoon ci xeex njaxlaf léegi nag gannaaw gi dafa taxaw ne jëmmi yàlla ji moom moo feeñ ci moom maanaam Eh, neena borom i tabaraka wa taala bimbindee aadama bimbindee aadama yàlla dafa jël jëmmam ji dugg ci aadama loolu taxoon maanaam aaya bi la jël eh, diglu leen eh, kii mbiram ni mu garaawee dafa ne borom i tabaraka wa taala bimbindee aadama bimbindee aadama taxawala ila suurati aadama nee na walidalika amara almalaikata bi sujudi lahu wa annahu taxawala ila surati nuuhin summa ibrahim mu ne yàlla bi mu aadama yàlla dafa maanaam feeñ ci jëmmi aadama loolu moo tax mu digal malaaka yi ne su jootal leen aadama maanaam su jootal leen jëmmi yàlla mu ne iblis nag bañ loolu moo tax iblis yàlla rëbb ko ndax dafa bañ a su yàlla ndax yàlla mooy aadama nee na loolu tax yàlla rëbb ko moom nag mu ne gannaaw ba nga xam ne aadama jugee na fi nee na ruux ruuxu yàlla googu dafa dem ci doom ji gannaaw gi mu dem ci noox jaar ci yonantu yi jaar ci ibrahim nee na loolu mooy maanaam boroom bi tabaraka wa ci boppam moo feeñ ci yonantu yooyu jaar ci isa ba yegg ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nee na gannaaw loolu nag ba mu jugee ci yonentu dafa dem direct ci ali ibn abi talib gannaaw gi dafa dem ci muhammad direct nee na gannaaw bu mu jugee foofu nag ci abi muslim abo muslim alxurasaani la dem direct ndax nee na abo muslim moo gën yonentu bi sallallahu wa sallam nee na bi mu jugee ci abo muslim nag ci moom la ñëw mooy hashim ibnu hakim mii ñu gënoon ko xam ci léegi nag moom dafa ne yàlla ci boppam moo feeñ ci moom moom nag naka la def euh, dafa jël masque nee nañ ab masque maanaam masque urus or maska mooy yooyu euh, ñuy def ci kanam nga xam ne da koy muur ci sa kanam kenn du la gis nee nañu loolu moo ñu tuddee ko muqannaa mooy ci masqué wu euh, da ngeen di gis ay plastique yooyu nga xam ne am na sa ñoo xam ne dañ koy defar di ko jaay teg ko ci sa kanam nga xam ne kenn du la gis kenn du la xàmmee moom loolu la defaroon nee nañ nag yëpp or la ko defee woon fi bët yi di nekk donc moom la defoon xariir bu wert loolu nag moom la daan sol nga xam ne ñëpp moom lañ ko xamee tur boobu sax moo mujj siw euh, ruuxu yàlla bu sell googu nga xam ne moo doon wàcc ci yonantu yi te gannaaw gi mu wàcc ci abo muslim alxuros alxurasaani nee na gannaaw bu mu jugee ci abo muslim ci moom la ñëw direct léegi nag nee na abo jaxfaril mansour moomutoon xilaafa gi abo muslim moo ko moomoon nee na abo jaxfar xamoon na loolu moo tax mu gaaw rey abo muslim pour bëgg koo foqarti ba noppi moom maanaam dama leen di wax euh, Mahdi yu par maanaam problème bi mu njëkk a am ak guerre bi mu njëkk a def kii la ko seqal kii nag laa leen di waxal mooy kan nga xam ne moom da doon oote ne moom maanaam mooy yàlla te it mbooloo mu bari la am nit ñi dañ ko war a jaamu dañ ko war a sujjootal ba nit ñi mbooloo ay junniy junniy junniy nit a ko topp ndax dafa wax leen na leen képp koo xam ne lànk na sujjootal ma lànk na maa jaamu koku dina am musiba moko dal comme la dalon iblis ca kanam malaaka ya gatcha dina ko dal aduna ak alakhirah lol la naxee nit ñi ba ñepp top ak kat bu reey la won manam lol dina ñew inshallah allah mom mi ngi wax ñepp ne mom moy euh manam moy khalifa bi abo al mansur dafa bëggona ray abo muslim abo muslim dari di naaw dem kaw asaman manam neena ruuxam ruuxam gi ba mu ne yéen maa ngi leen di laaj est ce que gis ngeen bàmmeelu abo muslim ñu ne ko déedéet mbokk yi xam ngeen aboy jaafar bi mu rayee abo muslim daf ko daggate pàcc par pàcc daf ko def ay saam mel saami yàpp sànni ko géej léegi nag moom ci occasion boobu la profité ne waaw abo muslim mi ngi noonu bàmmeelam kenn gisu ko ndax maanaam ruux gi dafa dem te nee na ruugu sell googu day dem ak ñëwaat di dugg ci ay jëmm yu sell nee na ci aadama la jaar jaar ci yonentu yi fi mujjee jaar mooy ci abo muslim gannaaw ga nag la jaar ci moom léegi loola wax naa leen mbokk mbooloo mu bëree bari am na ko ci ba noppi it mu ne abo muslim moo ko wax an an tariqal wahyi ne ko fayul ma sama deret mu ne abo muslim moo ko sant gannaaw ba mu yéegee kaw asamaan ya aboo muslim moo ko sant pour mu fayul ko deretam yi loolu nag moo tax nag mu ñëw taxaw léegi nag ñu ne ko waaw yow li nga def sa kanam ba kenn mënu laa gis mu ne dafay kanam gi dafa am leer goo xam ne nit ñi mënuñu koo gis maanaam àttanuñ ko nee leeraayu kanamam moom la doomu aadama àttanute xool moo tax mu muy jël masque boobu teg ko ci kanam teg ko ci kanam gi pour bañ nit ñi euh, bu ñu ko xoolee maanaam man nañ cee jëlee alku seen bët mën na yàqu wala leneen moo tax mu jël masque boobu teg ko ci kanam gi léegi euh, euh, ndax sax ca kanam incha allah dina ñëw ndax bi ñu demee ba mu dajale mbooloo jigéen yu bëree bëri ñëw ne ko ñun dañoo bëgg a gis sunu boroom maanaam moom dafa oote ne ak ak ilaahiya gu la oote bi mbooloo mi ñëwee ne ko dañoo bëgg gis sunu borom mu ne déet Moussa ñaanoon na yàlla nee na Moussa ñaanoon na moom pour gis ko mais loolu sottiwul ndax Moussa attunu ko mu ne yéen tamit bis bu ngeen ma gisee bu ngeen jàkkaarloo ak man seen yëpp dina yàqu euh, lenn na ci borom xam-xam mi nee nañu déedéet maanaam kanam bu ñaaw ak njàng moo taxoon mu doon def loolu nee nañu kanam gi dafa ñaawoon njàng ba yow boo doon lekk sax mu ñëw taxaw ci sa kanam nga xool kanamam gi danga nga wëcc ndax kanam gi jaxasoo gu mu jaxasoo benn ay góoma ci nekk loolu nag la doon làq moo tax mu jël masque boobu bu ñu ko laajee nag mu ne leeraayu kanamam gi moo tax muy sol loolu ndax doomu aadama yi àttanuñu pour xool ko nga xam ne euh, nee na léegi moo fi nekk daal mooy buur bi dañ ko war a jaamu ah. maanaam teggil na nit yi lépp lu sariyaat euh, tëraloon teggil na ko nit ñi léegi nag ne nit ñi am nañu àq jël alali doomu aadama yi ak côté bu ñu ko mën a jëlee mujj gi nasaraan yeeg mm, yàqkatu diin yu bëree bari ànd ak moom mu mujj nag am mbooloo mu gën a rëy coalition bi euh, maanaam gën a rëy mu takku nag taxaw siw nag sa tund woowu yépp ne moom léegi mooy yàlla ruugu yàlla gu sell gi moo wàcc ci moom gannaaw bu mu jugee ci abo muslim waaye mbokk yi abo muslim lu tax abo jaafar Mansour rey ko attention maanaam xalaat bi iska nekkutoon ci abo muslim al Qurasani iska laay wax iska iska nekku ci woon abo muslim bu woote woon lii lan mooy xew kon dina am mbooloo mu ëpp mi ba noppi dina fi jëlee Abu Jaafar waaye allahuma ba euh, ki nga xam ne miskin la mu ñëw oote loolu léegi nag bi nga xam ne taxaw na si woon loolu fépp daal di ne euh, mujisa laa leen di indil preuve bi gën a maanaam dama leen di indil preuve pour ngeen xam ne lii ma leen di wax dëgg la nee nañu nag dafa indi maanaam dafa asamaan si weer bi ñuy gis nii nee nañu ak def na beneen weer ci ak njabaram ba nga xam ne ñëpp ko teg bët asamaan si am ñaari weer dangay ngay fee benn weer ne benn weer gi nii ci asamaan si mooy weeru yàlla bi bi ñëpp xam mu defaraat beneen weer bu nekk fële boo xamante ni bii it euh, ñëpp ko gisandoo maanaam asamaan si gis nañ ci ñaari weer yu bokkul benn bi moom moo ko def ci ak njabaram gannaaw ba loolu amee nag mbooloo ma gën a yokkati maanaam ñëpp léegi daal am ñi ko gëm amuñu sikk sàkk ne kii lii muy wax nag dëgg la léegi nag noonu la def di gën a yaatal mbooloom di def ay guerre yu ndaw ndawaan di ko gañe di gën a yaatal mbooloo ma nii di ko gën a gëm jigéen ñi di ñëw ba nee nañu am na bis maanaam xamuñu ñaata lim ci ay jigéen a ñëw mu ne nañ ko tànnal téeméeri jigéen yi ci gën a rafet pour euh, indi ko mu ñëw pour ñu jege ko <laughs> yàlla ji doy na waar mbokk yi euh, euh, mahdi yu bi mu ñëwee lii la fi fekk problème bii nag moom la bëgg a régler ba pare moo tax weeram boobu ñi ko gëm dañ ci yéemu woon naka la mën a nekkee xeetu njabar da ci daan def lu yéeme ci xeetu njabar moo tax weeram boobu euh, abul ala ibnu suleyman waykat boobu di ko ñaawal ci weeram bi naan hmm. ko afiq afiq ayuhal badarul muqannau rasuhu dallaalun wa ghayyun mislu badaril muqannai euh, bi nga xam ne nag léegi lii am na euh, mahdiyu daa di nag préparé armée xeex ak moom nag war ko fay jëlee ndax mahdiyu bi mu ñëwee xeex yim def yëpp yi yim def yëpp daanaka mën naa ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi ci yàqkati diine yi la ko jëlee sindiq yi maanaam ñi nga xam ne dañuy yàq diine ku demee ni kii ak ñeneen ak ñeneen geeram yu bëree bari foofu la jëm léegi nag euh, bi nga xam ne euh, Mahdi yu préparé na guerre euh, kii nag ma nga woon fële ca Marw coté ab gox la ca gannaaw Xurasaan ñii ne bi mu yëgee ne Mahdi yu mi ngi préparé guerre dafa dafa gën a sori ànd ak mbooloomam dem min wara il bahar min wara il nahar foofu la dem wut fa benn tata bu rëy bi nga xam ne gas na tata gi la ko wër ba kenn mënu fa agsi euh, bi mu yëgee ne Mahdi yu mi ngi préparé pour ñëw ci moom moom itam mu na dem foofu pour wara a ay stratégie pour jéem xol guerre bi mom nako la koy defé Mahdi yu ci loolu la préparé moom itamit dil armée bu reuy yebal ci Jibril Jibril waw ba nekkoon le khurasan amir bokkut tak nak amiru khurasan mu jël Jibril euh, boole ko ak euh, Aba Awna boole ko ak ñeneen ñu jox leen arme euh, ñu wara dem nak wara jakarlo ak ki nga xamne moy Euh, Hisham ibn Hakim al muqannaa euh, pour war a xeex ak moom mbokk yi dañuy teg sunu loxo fii incha allah gannaaw nag euh, ba ñu xamee kii mooy kan ci ak mbonam ak ak doywaaram nga xam ne fexe na ba convaincre nit ñu baree bëri ñu gëm ko ci loolu fan la mujj lan mooy résultat wa xeex bi nga xam mi ngi ci sunu kanam insha allah fii li ñu tek sunu loxo di ñaan borom bi jéggal ñu jéggal leen wasalaamualeykum wa rahmatu rabbi wa barakatuh mbokk mi gannaaw bi nga seetaane vidéo ba paré ñu lay ñaan nga bëss fi ñu bind jëm bu fekkee gande ci chaîne bi nak bëssal fi ni ñu bind s'abonner après nga activer cloche bi ni mën nga tamit wax sa xalaat yi ni ci commentaire yi li nak do ci fay dara te dina tax vidéo buñ dugalati di ci jot jaa jëf